Assalamualaikum sama gars waaw Cheikh bi del si na dee waaw di len nuyu di len ziar yeen ñep fu ngeen tollu ci aduna waaw operation jant bi jeexna waye chronique yi mom kenn duko dindi ñoo ngi di jakarlo yeen fi ci Ndar geej fi ci senegal di wax ak yeen tranquillement ñun ñu ay bodyguard ñu kenn ku ñuy garder wala kenn ku ñuy wax lu ñuy wax ak lu ñuy def waaw suñu rew lañ nek di circuler ci rew mais li lañ bëggal doomu aadama yi xam ñoo ci bi aussi ah. kenn ku ci nekk mën a ñëw di wax sa xalaat di wax euh, li nga gëm hmm, di contester ku la neex ak nu la neexee mais teg ko ci yar ak ay tekki voilà fan yi taxaw nañ ci Ousmane Tunkara euh, liñ ko wax lépp dégg ngeen ko voilà aduna gis na lim def buzz la bëggoon am na buzz mais man day géey ma séré mi ah ñaan naa yàlla am buzz ci leneen loo xam ne si du lu ñaaw di xaste ak ay saaga ak inventé ak ay sos di sosal ay doomu aadama ci àdduna pour yàqal leen ngir rek président bi nga xam ne si ndeysaan moom lañ àndal waaw loolu rek moom mooy seen faute ñoom tey voilà loolu nag dafa war a dañ dafa war a jeex ci Sénégal waaw parce que du man nii du usman Tounkara du Françoise Hélène Gaye du kenn koo xam ne si ci librairie yi di gis fii di leen déglu ñoom ñoo war a tax en nit ki di dénigrer yeneen doomu aadama ndax rek seen gëm-gëm wala seen bëgg-bëgg parce que du ma ko wooyee gëm-gëm parce que man gaw ma euh, un homme politique di ko gëm ko lu may gëmee sama sëriñ wala may gëmee yàlla voilà mais nag kenn ku ne ci àdduna am na sa xol bi fu mu féete waaw bu ñu ma tegalee de candidats j'ai le plein droit de choisir qui je veux cinq lañ j'ai choisi Macky Sall di ko défendre di wax dëgg ci moom di wone fen yoo xam ne ñi ko koy fenal ma xam dëgg ga ñëw wone ko loolu moo mu indi fii loolu laay def sama jarbaat Coura Macky di ko def waaw suñu erreur nag mooy loolu ci selon ces gars ku mel ne Tunkara moomu gis ngeen wax yu ñaaw yi mu tourné ci site internet yi télévision yi wax nañ ci et tout loolu moom mooy wutum bësam bës boobu nag yàlla nañ ci yàlla musal bëss bo xamné yaq yàq deru la mel yow amo jabar amo nday amo dom yu jigen ba tax nga taxaw ci ay réseaux sociaux di saga jigen ji yor jëkërëm yor ay domam hmm? ñu leen di dégg fi xalé tay xam ngeen ne la mag ñuy dégg sax ñom lañuy dégg mag ñu duñ ko dégg né portable yi ñom ñëpp yor nañ ko wax ben jigen nak bëggul hmm? dama koy commencé ci jabari Ousmane Tunkara jooju ak ay domam di dégg seen baay taxaw di wax ci beneen jigéen boo xam dafa jur ay doom ñu seen ay moroom wala ñu mag leen ñoom ñooñu ñu dégg seen baay di wax lu ñaawe lii lu ñaawe nii ci soxna yooyu waaw ñëw na fi wax na Viviane dégg ko lu ne wax na ko ci Marème Faye Sall wax na ko ci yeneen jigéen wax na ko ci kuréel mag yi nii voilà ak yeneen ba démb ma dégg Françoise Hélène Gaye di yàgg ngeen gëj dégg ma wax ci moom man nit ki même bu ma àndul ak yow su ma gëmul la ngay wax la ngay def hmm? bokkuñ sax filosofi hmm? mais buñ la tooñee buñ la waxalee lu amul je te fan yee ci gannaaw dégg ngeen dama ne tunkaram nii ñëwoon Sénégal daw avant ndax ay triandage man la ma doon wax duma ci dellu ginnaaw virgule du tooñ du lu ma ko sosal man du ma sosal doomu aadama ci àdduna waaw daaw na avant élection yi dafa ñëwoon fii ne de déloger Macky Sall da koy génnee ca palais ba waaw mook ay gaayam organiser ay marche am nañ seen fayit bañ am ok changé wuñ dara ca Sénégal teewul élection yi jàll nañ nañ ko bëggee woon yàlla def na ci wis na ci ndox mu sedd liñ doon ñaan ñoom bokk ay dara di ca tuuru hmm? ay doomu aadama di ca dee bañ mën a taxaw fii ci réseaux sociaux yi di ko accuser Macky Sall yàlla dindi na loolu lépp bu ma juumul élection yi defe naa mooy yiñ yaakaaroon ci gën a optimiste ci àdduna yaakaaroon ne élection yi mooy gën a tàng ci élection bépp bu mës a am ci Sénégal yàlla mi dara tawul may fal di folli du tunkara du lu bokk ci moom walla ñeneen ñu taxaw naan premier tour ak deuxième tour ak lii du fi am ak sinon daañ dajji pale ba ak daañ lakk Sénégal ak daañ taal réew mi taaluñu fi benn brique kilob ñax tàkkul ci Sénégal élection yu gën a sedd yi musul am ci Sénégal nekk ca àll ba nag ñu leen di nettali lii ak léegi ñoom ñoo ko defoon y compris Tunkara yooyu mu doon def ci suuf xale ñu doon former fi ñu taal ay station essence yooyu yëpp yëg nañ ko waaye réglé wuñ ko li ñu amal importance mooy yàlla def na ci wis na ci ndox mu sedd élection yi jàll nañ Macky sàll bañ doon xeex di ko sosal fake news bu ne inventé nañ ko fii hmm? ngeen dégg ko mais li ma leen waxoon yàlla mooy fal te yàlla mooy folli du ñii di yuuxu ci réseau sociaux yi du ñañ àndal voilà dëgg gi newoon naa ne mooy jëkk te mooy mujj tunkara ak ay gaayam ak ñu ko xalaat ak lu ñu mën a xalaat ak lu ñu mës a inventé yàlla woon na leen ne moo yor doole ji mooy décider waxal lu la neex defal lu la neex inventé lu la neex waaye bu décision jotee buur bi ci kaw mooy désidé te kenn du dindi lam def voilà loolu na leer ci seen ay nopp loolu nag yàlla def na ko lam doon xalaat loolu amul. loolu amul lan la def mel na ku jëfur ñëw toog fii yàq ay deru nit saaga ay nit yoo xam dañoo yor seen njaboot muy góor di jigéen góor danaa ne Youssou Ndour jigéen Viviane Mariam Faye Sall Koura ah, Macky mi ak yeneen doomu aadama yoo xam ne si lan mooy seen erreur mooy ñu ñu ñu dem ñëw ne dañoo ànd ak Macky Sall loolu mooy seen erreur loolu Tunkara daf leen war a wax moom mooy kan ba di ko décider. Tunkara taxaw na fii ñetti live yi ci gannaaw dem leen ngeen déglu ko dem na bay def yi nee na bu la yàlla yabaloon ci suuf sax kilifa diine goo doon tarixa boo mës a doon foo mësa bokk intéressé wu ko l'importance mayul kenn muy wax lu baax ci Macky Sall wala muy wax contre Sonko ma nga xam ne au dernier minute jëndi lu ko sax dis votes indi lu ko Sonko te loolu Sonko xam na ko hmm? ñëw ne mayu ko kenn sinon dina def jaar fu ñaaw dem leen ngeen déglu vidéo boobu bu ko weddee wala mu effacé ko ma ñëw dindil ko ko ay vidéo dañ ko téléchargé teg ko fii saaga boo xam ne si rus naa sama lami yu mu ci génnaat la ci teg teg ko ci lépp loo xam ne mu ngi Sénégal gii di kilifa diine di kilifa aada gu mën a doon mayu ko kenn mel ne moom mooy ndey mooy yàllay réseaux sociaux yi bay décider kan mooy wax ak kan moo dul wax waaw kooku ma dégg Françoise Hélène Gaye li ma leen wax gëj naa ko dégg dégg na Tunkara gars yi dal nañ ko côté bu ne xam na ne weere na complètement dugg na nag finalement ci foo xam ne moo doon euh, limite ba dafa romb limite ba Françoise dem ma dégg ci live mu attaqué Tunkara mu jaaxal ma trop am ci part boo xam dama ci d'accord ak moom parce dafa am fu mu ko dóoree parce que jigéen la bu déggee ñu saaga jigéen war na ko defendre en tant que femme waaye la man neexul ca live boobu moom laa bëgg mu leer ndax jigéen yéen ñi may seetaan dama leen bëgg a xamal ne amul jigéenu série bi séeri A ak série C da ci amul jigéen bu may taxaw di défendre jigéen je défends la femme en général waaye Françoise Ellen gay ak nafeqam ci live bobu taxaw na di défendre Viviane nour waye défendre Marème Faye Sall kooku mooy am jigen jigéen ne bu la nexé saga ko wax ko lu la nex waye Viviane ma nga xam ma ngi koy mar pour ëlëk mu woo na ya may défendre ci réseaux sociaux yi war nga ko rousse Françoise parce que bu moy dégg affaire bi attaquer Tunkara dama foogoon na yow da nga généraliser booy défendre jigéen foo défendre Viviane war nga fa défendre Marème fay Sall Viviane dafa am jëkkër am ay doom yu mag yow mii di jigéen François nga yor sa jëkkër yor say doom Marème fay Sall yor jëkkëram yor ay doomam te sut bu doon am moo leen sut jëkkëram a sut seeni jëkkër moom moo leen sut parce que seen first lady la mu neex leen ak mu naqari leen waye yow Françoise contre nga Fran ah, Marème Faye Sall tax ngay permettre Tunkara mom mo wara a jéggalu Viviane waaye soxlul muy jéggalu marem Faye Sall kooku mooy yëfu naafeq ndax yow kooku honoré wo sa bop ko en tant que femme parce que bu saga Viviane saga Mariam saga na la yow waaw te deg nga Tunkara saga na fi ay jox na fi ay caga ay kuramaki. yow mii waxal na la lu nekk ci yu mel noonu hmm? tey nga ñëw di défendre Viviane kese hmm? booy défendre da ngay défendre ñëpp Tunkara lam def dafa yamul ci jigéen Youssou Ndour ba Youssou Ndour yi di di Youssou Ndour yow François existé woo Tunkara mi existé wul daaw daaw ak jéeg lañ leen fa xam année yi Youssou Ndour 40 ans yi ñu xam ko doo yàq dara ci crédibilité Tunkara ak lu tak ci tunkaram mu yak fistin ci crédibilité yu sundur lan euh lan moy problème bi ngeen ko len yoral Macky Sall lañ andal kep ko andal Macky Sall la tunkara amna faculté amna droit taxaw ci réseaux sociaux di saga di wax lu ko neex ci famem ci vie intime ak yépp te yor jabar yor dom yor nday mu teg ko fan Youssou Ndour du jigéen mais daf ko respecté li Youssou Ndour def Sénégal yow Françoise ak Tunkara bu ñu leen booloon ak lépp lu tax ci yéen defu leen ca lu toll nii seen patriotisme bi ngeen di woote senegal lañuy xeexal Youssou day xeexal senegal du wax da koy jëf waaw àdduna yépp gis ko du seeni wax ci réseaux sociaux yi moo tax nit ñi dof di leen déglu yus ndur la ngeen ko contré mooy yow françois la ma la nanguloon ko Tunkara mi yow au moins am nga courage ñew Sénégal and ak sa Idriss tek campagne ak mom ba ngeen gagner wala ngeen perte nga dem tapet bi nak dafa daw avant waaw lolou dama ko wax aduna deg ko te waxuma ko bu ruutu la neex damay wax lay deug ga motax bo defé defee nafiq ma taxaw ne la def nga nafiq li nga def deb nafiq la défendre Viviane te défendroo Marème Faye Sall parce que lim ko attaqué moom mooy Viviane dafa way Macky Sall di ko feccal jabaram yooyu lan moo ci yoon Ousmane Tounkara Viviane bu tëggaloon ah, Sonko mi mu àndal wala mu tëggaloon Idrissa Seck da koy tàccu kenn du ko saaga kooku mooy ay naafeq ngeen yeen ñaar ñëpp waaw man defoon naa da ngay ñëw attaqué ko commencement ba fin la ma gën a jox déception ci yow mooy à la fin nga woo mu ñëw intervenir na ci këram di happy di rey comme quoi moom daal ba léegi nanguwul jéggalu Marème Faye Sall en tant que femme bu yor jëkkëram yor ay doomam waxuma sax président ak fës lay bi mais jigéen ak ay doomam doom yoo xam ne seeni moroom lañ yéen ñuy dégg un vaurien bu tekkiwul dara toog fële ci Amérique di wax li seen ndey nga teg ko fan parce que Macky Sall jëkkëram mooy président bi Viviane nag moom waykat la lay defam mooy nam way Macky Sall ak jabaram nga ñëw fi ñàkk jom naan da koy danga nga koy jéggaloo booy jéggul da nga war a jéggul jigéen ñëpp Françoise Hélène Gaye mi sax da ko war a jéggul yow baadoole bi Tunkara yow lay waxal oui man sa ay menace sa ay jax sa ay bomb booy préparé pour man ak kura mag yi bomb bi rek lay xaar xamal la bomb bi tunkara yaa ci toog barke Serigne Touba boo ko yëngalee léeg-léeg nit dañ la fexeel ñëw duju ci nga taxaw man loo may fexeel amul loo xam ci man loo xam ci man def ko li ma lay ñaan sa golo yooyu ngay yebal ñu naan dañuy jaar ci man di jéem a enquête ak jaar ci samay gaay pour am information ci man lañ la def parce que je set wecc sa bomb moom lay xaar gis nga bomb boobu day exploser sa kaw foofu laa yem ak yow parce que tuddoo tur ya waaye ña ngay waxal ñaar ñi nga ne dañ leen a yabal dañ leen a yónni man kenn yónniwu ma kenn yabalu ma Kromé kenn yónniwu ko kenn yabalu ko ca laayu Françoise bi yaa ngi koy wax ndax daf ko contre moom moom mooy dafa dem Sénégal yu décorer ko ndax président recevoir na ko c'est quoi président recevoir na ñoo xam ne si defaluñ ko la kur a def defuñu ko man mii la ma ko defal defaluñ ko ko recevoir na ko mais c'est où le problème ku Macky Sall waxal daal daf la fay wala moo la yoon yónni yow boo ñëwee di mën menacer même les tarixa la au Sénégal kenn du wax ci Sonko est-ce que Sonko moo la yoon yónni est-ce que Sonko daf la fay du sa fois wala sa gëm ci moom moo tax nga def ko permettre la ñeneen ñi démocratie lañ nekk ñu mën a gëm Macky Sall défendre Macky Sall sans pour autant que Macky fay leen dërëm. waaye du valable ci yow kese boo demee défendre Sonko devant le monde hmm? keneen mënul defendre Macky Sall te ngeen di woote démocratie naan dictateur bi mooy Macky Sall yéen daal dangeen ngeen àndal sama bu ngeen àndul ak ñoom da ngeen leen war a saaga Ousmane Tounkara dama lay wax ne waxuma ne Youssou Ndour Balla Gaye 2 mbër mu ponkal mi ngeen di gis macha allah ah Modou Lo gaa yooyu Macky Sall lañ àndal lu tax laayevoo nga saaga seen yaay wala nga wax li nga wax ci Youssou Ndour ci ñoom ñooñu xam nga Youssou Ndour du la mës a tontu parce que bojo bojo yi ngay wax yi mu lay wax nga koy wax naan li ma sol bu ko xoolee oto du ma toog xam ne du bojo bojo Ousmane Tounkara bojo bojo du ci mbubb mu ñuy sol du ci oto bu ñuy dawal du ci kër guñ dëkk bojo bojo ci mayen la fii sa mayen bi nga yor mooy bu bojo bojo loolu la Françoise waxoon ne la jàngoo da ngay dem ngay lire ay livre moy lolu c'est pas auto bu la neexoon ma dem louer ben limousine ñeu tok ci live hein ah, comme ni ngay def tu vois ñeu naan auto bi mako ko sama bay jamanter la won dug na fi genn ko xamne ne CM2 ya ko wax ci ben site fa nga yam sam jang non la François wax ignorant aduna nak du sax wala triandé hmm mom koy doxal boy tang nek nekk bonkal déedéet waaw même business bi nga defoon yaa weer sa bopp fii ak courant negal ma attaqué la Macky Sall dina la jox Macky Sall loolu war na dugg ci noppam bi la même chose tu as joué avec Françoise Hélène Gaye moo ma bett ci côté boobu way ñëw di la xas-xas lu fii ba àdduna yaakaar dëgg la ci moom mu invité la boo ko jayee ah bañ nay yow sama sista ga muy ree <laughs> kërëb kërëb yéen ay faux type ngeen ay naafeq ngeen yéen ñaar ñëpp waaw man ku ca tooñ hmm? dama koy nangu François dama koy jëkk a wax lii muy reproché démb Ousmane Tounkara moom moo ko ci jiitu nee nañ la kéwal du tëb doom ja bët moo taxaw ci laay boobu ne Ousmane Tounkara du woon dara man maa la lancé sama ay show pour ñu xam la donc Ousmane Tounkara sa école la génne yàq der ak sosal ay doomu aadama François Hélène yaa ci jiitu dëgg bu jotee dañ koy wax de way lii ngay reproché Tunkara yaa ci jiitu ñaata doomu aadama nga postelu fii seen ay famille seen ay doom et toutes ces choses là kenn wax na ko booba Tunkara xamuñu kuy Tunkara donc Tunkara bu ñëwee fii ah di attaqué jigéen ñi di attaqué ni di leen saaga école boobu mu génnee yow mi ko lancé foofu la ko jàngee loolu mooy dëgg ga boo taxawee naan Youssou Ndour moom la ñuy jox xaalis donc seen télévision ou chose dañu war a joxe ay programme yoo xam ne si dañu war a joxe éducation te yow sa ay programme éducation amu ci formé ay saagakat yoo xam yéen a ngi accuser ay Marème Faye Sall moo ko formé da ngeen ciy génne benn bu ñëw témoigner fii Ah, ngir yàlla ci jëmmi yàlla diggante ak yàlla mu ne Marème fay sàll wala Macky Sall moo ko yónni ci deux vaut rien comme vous naan dañuy perdre seen temps di fay xaalis pour ñu saaga leen ci réseaux sociaux yi xam ngeen ne loolu seen jukka la lii seen jukka nag moom ngeen di bëgg attribuer di bàyyi leen yooyu loolu du éducation bi waaw ndax Youssou Ndour moom nga yow bu jëloon kan lay jël Françoise Hélène ngay teg ko ban programme nga fay génne former ay doomu aadama yu saaga ay parce que ànduma Macky Sall dama koy contre wala ki la andal mom lay favoriser ken amul droit and ak Macky Sall ken amul droit défendre la femme de Macky Sall même boudé jigen la jigen ju ëpp doole ëpp len daraja ci ko ko dogal mun len ci tus first lady don don nako doon ko musa doon du yaw du jabari tumkara du aduna du yag ba ngeen doon ko kon nak la yalla dogal di len ko nangu waaye naa défendre Viviane jabari Macky Sall moom bu la nexé saga ko lu nex parce que jabari Macky Sall la mais yow kooku mooy yëfu naafeq boy défendre jigen sa bop nga ko wara a commencer Tounkara daf la offendre yow avant tout ndax da nga yor jëkkeur yor ay dom Marème fay yor ko Viviane yor ko même différence wour len ko ci def jigen ñi la offendre donc jël jigen si jigen bi non koku du sa waru gar yuuxu yi nga doon yuuxu di ko attaqué à la fin gis nañ ko weer ngeen seen bopp business yam doon jéema a proposé euh, nu mu tëddee mële kura makime loolu nga doon doxal ak moom yooyu du fi yëngatu mi ngi noonu jéem nga ko attaqué mu ñëw fii Macky Sall du leen mës a woo du yow du Tunkara pour leen neexal pour ngeen noppi kooku du am mille vingt mën ngeen ngeen créer yeneen waaw. xëy na sa indi gagné wala beneen candidat boo jàppale tapet bi moom waxuma sax ay waxam. parce que bokkat la dégg ba deux jours ab mu nefee naan day défendre ay sonko bu doon sonko yow lay yaakaar tunkara ah, quinze pour cent yee mu am da koy rêvé waaw parce que jigéen ji naan dalay jàppale fii yéen ñaar ngeen dóor seen ay dël baax ba pare kii ñëw ci live mu koy invité yooyu dañ ko dépassé waaw dam leen ngeen jàng lan mooy communication bi ngeen di def avant tout Françoise bala nga naan ay Youssou Ndour Youssou ña fa ne ca télévision yee RTSB 2STV ay nit ñu jàng xam communication lañ fa teg du yow ak ñu mel na ay tunkare lañ fay teg bu ko bu leen fa tegee da ngeen yàq Sénégal complètement waaw waa ji li nga koy reproché yaa ko ci jiitu Françoise Hélène Gaye yow lay waxal te xam nga ko vidéo yi ñu ngi tourné fii soo bëggee ñu tagal la nga doon wax démb ak bërki démb sosal ay doomu aadama yàq seen ay der yaa ko jiite amaa Tunkara kon nag soxlu nga an Tunkara man maa la formé fii nga jaaroon balaa ñu lay xam kéwal du tëb doom ja bët foofu laa yem ak yéen bàyyi leen seen naafeq gi day wax ay dëgg tante ngeen seen chance politiquement rëcc na xaar leen deux mille 2024 ngeen tante waat ko feneen fekk cinq ans moom seen tappale yi amul benn njariñ boy défendre jigen défendre jigen ñep jigen je gëna pauvre ba ag ci maram fay sall mais yow mi gëno ko en tant que jigen tungaramé ndayam ak jabaram ak ay dooma yu jigen gënuñu doomi maram fay sall gënuñu doomi vivian mais doomi vivian gënul say doom gënul ñu doomi macky sall ak jabaram gënul doomi tungaram limi baadoo la baadoo la kon nak boy att di att deug ngir yalla soko mënul nga nopi falsité yi ngay ñëw di jaay la personne moderne man maay taxaw di clash ay tunkara parce que lim def jigéen ñi nangam mu ñëw ba fii naan je défends Viviane Viviane ngay défendre pour mar Viviane pour suba Viviane woo la naan la yaa ma doon defaan Viviane bul def loolu naa fekk la moo gën a nekk naa fekk tunkara mii na leer fii laa leen tàggoo nag fan yi peace and love gars yi right leen bindu leen ci chaîne bi Khadim Gueye Tebe dëgg moom bu jotee dañ koy wax Tunkara duma ko may dara waaye li nga koy accusé yaa ko ci jiitu Tunkara bu la tooñoon damay wax dëgg ga la nga def courage ba nga am ñëw fii ànd ak sa idi même ba mu perte na mais tu étais là sur le terrain tapet bii defu ko loolu mooy dëgg ga bàyyi leen seen naafeq gi bala ngeen di woote leneen Youssou Ndour mais ngeen di attaqué lam toog ci Sénégal lu tax ci yéen ñaar ñu boole ko du ko mës a def yuusu pat àdduna du yàgg bu mu tontu leen parce que amul seen temps amul seen jot bojo bojo du buy toog ci benn oto yuus Ndour xam nga ne soxlawul ay oto soxlawul ay kër lam ca yor du milliardaire boo xam day taxaw naan mel milliardaire ak yoru dara di triande ay ni sàcc de gauche à droite déedéet il a ses biens soxlawul ñu naan Youssou Ndour ñëw naan milliardaire la ñëpp xam nañ ko man a man nag foo ko fekk du waaja koo xam bu taxawee ma ngay wàccee nit ñi yëkkati boppam xamal ne kooku du tus mooy Ousmane Tounkara mii maa ngi xaar sa bomb nag maa kura Macky nee nga kura dañ ko yónni man kenn yónni wu loolu yaa kura bu dee dañ ko yónni da nga ko réglé waaw président recevoir na ko daal ñëw dañ ko yónni kooku mooy sa falsité Tounkara ña nga demoon dajal ay Sonko gaa yooyu dañ la yónni woon déedéet ni nga mbéyam ñu recevoir la wax ak yow moom am na droit président recevoir bu wax ak moom parce que daf ko défendre ni ngeen di yàq daram di ko sosal di ko fenal nit ñëw weddi loolu mu jëw jàkkaarloo moom sax nuyu ko kooku du question da ko yónni fii kenn yónniwu fi kenn bu la Sonko yónniwul ah Idriss Seck yónniwul Françoise Hélène Gaye man mii Macky Sall yónniwu ma yónniwul Coura Macky way dafa am fu ngeen féete ñu am fu ñu féete nañ respectente bu dee yi ngeen bëgg a jaay mooy démocratie loolu mooy démocratie sinon taxaw ci seen biir woonte ci suuf xaaral ba dem live woo la après jéem la xas affaire yooyu dañ ko dépassé Tunkara def na fi yooyu dafa àdduna xam nañ ko du foog ci yooyu la mujj te lii bu ko bàyyiwul fa muy mujj du baax kon nag soppi leen ba bu ngeen bëggee soppi waaw bala ngeen di wax sénégalais yi ñoom ngeen di xeexal ah ñëw leen ci terrain ngeen xeex yéen ak seeni i doom ak seen i jëkkër ak seeni jabar toog fële di yuuxu di yabal ay doom yu jàmbur ñu rey seen bopp hmm? loolu dafa jeex loolu du patriotisme ñii li ñuy dund seeni doom dunduñu ko métit boobu yéen yëgu leen ko métit boobu seeni doom xamuñu ko teg ngeen leen ci condition yooyu foofu ngeen ne kon nag bu leen rey parce que ñii li ñuy dund ñu ngi dund. lum tout tout tout tuut ñang ci dund lañ ci wara dundé soxla wuñ leen bàyyi leen seen naafeq bi utiliser doomu adam yi souffrir fi pour ay sen ay bien personnel ndax politiciens yi jàpp leen ngeen jàpp ñu teg leen yenn position yi yoy ngeen soxla moy sen business yoy Tunkara doon wax fi business amu fi bo gëmé dara diko wax ngir yalla mais pas parce que dama wara def li pour am ja lay tunkara kat bu mak fi top wako pour mu yobul la ci Macky Sall nga wax ak mom mom mo la fu yobul koku moy nafeq bi taxaw di contre Macky Sall di sagalu lu ci Macky Sall président bu ko mës a a recevoir loolu lay wut ci yow takal ko lim yor 2024 na ñew fi digand bu fi ñëwee saga président sa yon neku ci saga na ñen ñox ñokoy porter plainte ci kaso be lay mujj koku ñoo ko wax peace and love guys ba ci fan yi incha respect